waaw euh, comme ni ma ko waxee rek nga may ma sant yàlla euh, sant sangu sang yi Seydina Muhammad sallallahu taala wa salaam euh, yeesal suma kóoluteef ci xaadimu rasul sama sëriñ mais sant aussi président de la république Macky Sall ndax man maay benn sénégalais boo xam ne depuis 2000 liste bu ñu fal ci CEDEAO fal nañ ma fii ci assemblée nationale mu tàmbalee ci Ablaye Wade jaar ci président Macky Sall yàlla dogal na ma def mandat ñeenti at boo xam ne bii man maa yor lépp lu ñuy def ci parlement bi ci suma responsabilité la doon defit la ko jiitu ñeenti at yoo xam ne membre du bureau la kon ñaari législature yi passé man maa doon conduire délégation sénégalaise lu mat juróom benn weer ci ginnaaw laa wax ci réunion bureau nañ ma dindi ci cinquième législature bi ndax foofa nekkatul suma place ndax mënoo liggéey fukki at ci barab nekk fa ndongo nekk fa sëriñ ba nekk fa ab yonent ngay ñëwaat ne naa nekkaat ndongo loolu it ci juboo ak suma groupe juboo ci ak président de la république avant may dem ñu tànn beneen équipe équipe bi nag ñaar ñoo ci bees kenn ki ku jàmbaar te nekkoon non inscrit muy Oulimata giro li tax ñu dindi ko mooy place su jàmbur la jëloon ndax post bi opposition majoritaire ko moomoon ñu waroon a joxe góor joxewuñ ko ñoom ñu gedd boycott non inscrits yi nangoo jël post boobu ñu jox leen ko keneen ki ñëw di Aimé Yacine ñu def ko tête de ku yàgg APR la ku yàggoon ci bureau bi la ak commission yi bi ma génnee moo toog suma place nekk tête de liste bi kon dafa mel ni continuité moom la Sénégal bëgg ndax ñeneen ñi ci des def nañu ak man quatrième législature bi muy Abdoulaye Wilane Souleymane Ndoye Ibrahima Baba Sall Adama Silla bi loolu foofu laa bëgg a wax ndax dama bëgg rek yëf yi leer kenn bañ a loolu moo ci ne kon ñooñu xam nañu liggéey bi liggéey bi nag li ci am solo te waa assemblée waroon koo wax ndax dañ koo waroon a wax na ko fële waxe ndax Sénégal laa fa nekkaloon nekkaluma fa woon suma bopp mais wér na ne ñun ci sunu biir am nañuy problème ndax bu ma demee ba réew yëpp tàccuma ni li ma def kenn mësu koo def te mooy dëgg ndax li ma jël man bu dee benn lañ ma joxoon def naa ko fukk loolu danaa ko leeral ci yeneen i plateau ñu wax ba bàyyi santuñu délégation bi génnoon ku santul da ngaa xarab c'est parce que dañoo ami problème interne looloo tax defuñu ko loolu maa ngi leen di xamal ne rafetul ra président assemblée moo ko war a wax ndax moo nu yebaloon ci ndigalal Macky Sall Macky Sall moom gis naa ko sant na ma bi ma demee ñu waxtaan ma xamal ko ni damay jébbale loolu avant may dem sant na ma rafetlu na li ma liggéey wax na ko ñaari yoon ba ñetti yoon fii wax na ko ci King Fahd ñëw na Abuja tal avion ngir man pour jàppale ma mais fii bu ma fi nekkee liggéey lu mel noonu dañ koo war a wax waru ñoo toog palam-palamal rek nomee dem mais suul ker du ko teree feeñ député la maa ngi fii bu dee ku wax dëgg ñu jéem laa classé danañ ma classé parce que damay continuer jouer sama rôle député ndax du lu tuut mais di wax lii njariñu askan wi bu ñu defee ñuq-ñuq boo xam ne président gënalu ko bëggul mu am te dañ ko koy nëbb bu ñëwee fii laa koy wax loolu moom mooy suma position kon loolu moo ci mat a xam man nag sant naa yàlla ndax juróom benn fukki at juróom laa am am naa ñeenti mandaay député liggéey naa liggéey boo xam ne la ma wax nañ ma évaluer contrôle interne def nañ ko muy audit interne cabinet allemand ko def mënuñu maa tooñ to joxañ baaraam defaat commission boo xam ne Souleymane Ndoye miy rapporté ab nigérian di sénateur mooy président commission des finance et lañ ma wax mooy def nga lu baax kon Sénégal gi ko waroon a wax mais Sénégal du dem parce que iñaan ak bañ ku la doon te ku deewul danañ la doon ku deeñu doon la parce que yàlla moo binde noonu àddina kenn mënul nekk buur dëkke ko di falu ba ba ngay dee ñu la ci pax ku wax fii ni mu tàngee assamble nationale bi buñ bëggee ñu liggéey xaalis am na fi nañ defar climatiseur yi mais duñ ko defar xaalis bi dañ wax fu koy def loolu mooy problème bi may ma tuuti damay wax lu ma ñor li nga bëgg duma ko wax li ma ñor laay wax assemblée bi tàngoor waa ngi bëgg a rey nit ñi te xaalis am na fi mais gannaaw ku wax dëgg comme li ma sëñ mbay Sy Mansour ni ma yow kuy wax dëgg nga dee ko wax assemblée nationale ku wax dëgg ñu ne da ngaa contre mais est-ce que député même boo bokkee majorité te gis lu baaxul da ngaa war a toog noppi da ngaa war ni lii nañ ko jubanti ndax président moom day définir ab politique politique bi mu nu dig baax na mais mise en œuvre bi yaa ngi gis tey jii Cour des comptes ku ne ñu joxañ la nit nangam mais ñooñu ñu joxañ nañ dem répondre dañoo war a dem tontu ji ci liñ leen tuumal dëgg la wala du dëgg am réew noonu lay doxee man loolu laa waroon a wax sant yàlla sant président mi nga xam ne moo a jox liggéey bi mais jàpp naa ni lettre bi ma ko bind te dana ko jot mooy war naa kontaan ci li ma liggéey man bu doon ñëpp def nañu ni mu def président assemblée def ko institution yi directeurs yi ministres yi ku ne leeral li nga def nga wax ko mu leer naññ te kenn du ko mën a weddi réew mi li ngeen ci bëgg da ngeen ko am waaye am na ñuy ñuxum ñuxumal te ku leen tudd ñu fay ay nit pour ñu nekk ci réseaux sociaux yi saagaak wax yooyu amul njariñ waaw